salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu di leen bokk taalibe yi di leen ziare bu baax a baax a baax waaye ñu ngi fii ci waañu wi ci waañu mu muxaddamatul xidma niñ ko daan defee ci weeru koor noonu lañ koy defee ci gàmm ak màggal ak yëpp. fii moom liggéey bi yàlla def na ne maîtriser nañ ko def nañ ko gàmm nañ fi ay ati at boo xoolee waaw nañ koy daan nañ ko daan taxawee ci koor rek boo xoolee itam guddi gàmm gi noonu lañ koy taxawee ndax ñu taxaw nii. ni noonu lañ ko daan taxawee ci weeru koor gi comme tey guddi gàmm noonu lañ ko taxawee soo xoolee daanaka liñ fiy defar xéwale na lool bari na lool daanaka ci benn guddi ak bis bii lool ndax boo xoolee daanaka ñi ngi fiy defar parce que ay lu tolloog ay tarmusu meew yi ñu ngi defar ay six tarmusu meew ak boo xoolee ataaya itam dañuy defar ay trois trois tarmus boo xoolee tarmus bu ne dafay nekk 40 litre ba ci café ak ataay yooyu yëpp dañ koy lii dañ koy defar waaw moom bari na xéewale na lool daal boo xoolee moom xéewal na ak te bokkut ak yeneen yi fii ñëw daal moom boo xoolee boog yeneen fii ñëw boo xoolee ne xam ne ci ni ni mu tegee nii nga xam ne lañ fi tàngal ak quantité bi bari na lool bari na lool macha allah daal. dañ ko fi waajalaat ndax am na ñoo xam ne dañuy indi seen su ñu ñëwee dañ koy teg ne ber ko dañ koy doog tàngal kon xool ko na mu gën a liyee ñu doog ko yéwee ne jox ko jox ko murid yi daal ñu liyee ko waaw ndax ñun li ñu fi tàngal bari na teewut tam am na yéen ñu fi ñëwaat boo xoolee tàngalukaay yi noonu lañu ñu fi bëree ñi ñi daan taxaw ci weeru koor gi rek noonu lañ koy taxawaatee daanaka ñi doon membre yeeg yëpp rek noonu la ñu ñëwaat àndandoo ko ci guddi gi dundal guddi gi ñun ñëpp ñu ànd ko liggéey ko di doole sant di ñaan yàlla ñu teew ko ay déwéni déwén yoo ànd ak xew yu bari ci barkeb Seydina Muhammad barkeb guddi gi ak barkeb barab bi tedd bi barkeb borom Touba ñu fekk teew ko ay déwéni déwén yàlla suñu borom nangu lépp daal ci ak yiw